assalamu alaykum wa rahmatullah mbok internet yu Senfootball TV ñu ñaan bu baax baax ziar mbok yi tout d'abord dama leen remercier l'autre jour dama leen wax ni am na sama benn internet bu xamne bu doon invité mu ngi wax limaas ci sama live sama direct yi mu am jafe-jafe aduna xat-xatu aduna mo wax leen ngeen dimbal ko ci jour bobu ñu bari envoyé nañ seen cinq ñi seen mille francs ma leen sant bu baax baax euh mais nak da ngeen bay ngeen seen loxo continuer parce que franchement doo bëgg naa 600 000 yi xamante da koy amal banque bi mu fay ko carrément et que mom la doon wax sama vidéo yi nu mu dédé 2000 personnes voire 3000 personnes dinañ ko saa bu dee ba dé donc 600 personnes yi ku nek bu awaay benn 1000 francs rek euh, mu mat 600 000 mu mat bu yàgg donc jappalé ci bu baax baax numéro de téléphone bi moo nekk noonu xam nga donc expliqué naa leen keroog euh, problème bi mbokk yi nag tey ñu wax ci Boubacar Camara parce que actualité la amna ñu bari ci commentaire ñoo ngi wax ma def ci vidéo après ban réaction la am propos rek limu wax si conférence de presse comme quoi mom dane fédération sénégalaise de football mosu koo contacter xam man damay dem conférence de presse maa ngi commencé dem conférence de presse bi ma mujjee dem conférence de presse loolu moom ma taxaw na jóg sama question dama ko bindoon pare xam pour poser question Aliou Cissé nekk Aliou Cissé dañu dégg si taskatu xibaar yu mag yu nekk fële ca France lu si mel ni Provence mooy taskatu xibaar bi mu gën a mag euh, Marseille laa mën a wax euh, lu si mel ni l'équipe si wàllum sport France moo ko yor euh, lu si mel ni France football ñoo joxe Ballon d'Or ñuy wax ne fédération sénégalaise de football dañoo contacter Boubacar Cameroun loolu dëgg la wala du dëgg malheureusement bés boobu noonu journaliste yi fa nekk yëpp Bouna Sarr Bouna Sarr mooy Bouna Sarr bu ñu koy convoqué quoi wala parfois doo xaw a soxla pour dem conférence de presse parce que question yi dafa tuuti te sama genre dañuy jóge fu sori xam nga c'est c'est c'est compliqué xam nga ñëw ba foofu pour toog benn benn vingt minutes war a ñëwaat si oto yi ñuy misé c'est très compliqué donc loolu moom taxaw na te malheureusement temps bi euh, voilà c'était compliqué waxtaan naa si sax ak Mame Fatou Ndoye xam nga mu ne ma fii de c'est comme ça xam nga rek voilà dañuy comprendre mais bon Euh, li yàlla xam te en tout cas loolu moom moo taxoon a jóg booy bi nag andi na ay leeral comme quoi moom nee na mosuñu ko contact xam nga loolu bu fekkoon man maay Aliou ma dégg conférence de presse da wax léegi nii une heure de temps après mu woo ko damay woo damay wax Bamba Dieng wala Pape Gueye ne jox leen ma numéro boobu Camara ñu jox ko tout suite ma ne ko booy da nga ne mos ñu la contacter ah léegi pare nañ pour contacter la parce que actuellement duñ jëm ci coupe d' dafa am ay points d' yu bëri ci euh, compliqué ba tey joué gul même si des prestation bu intéressant la def comme récupérateur et tout am na ñuy wax le retour de Pape Pape Alioune Ndiaye donc am na ay interrogation yoo xamante ne voilà ay laaj yoo xamante ne leeru si bopp Aliou Cissé du coup bu doon may Aliou Cissé dama koy parce que contact boobu c' est binationaux yi fi nekk yëpp loolu mooy problème bi parce que ñun dañuy demee comme quoi comme sénégalais yi ñun ay sénégalais lañu parce que je me rappelle le roi Sané mu koy soog a seetaan Ligue des champions Bernabeu contre Real Madrid ma gis que xam nga ma xool Sané bi rek mën a waay booy bi il est extraordinaire mais sa première réflexion rek mooy lan bu ñu nee na kii Bayern fële la juddoo Allemagne nag ah Sénégal moom kii moom du laal moom mu ngi rek xam nañu mën a joué Cameroun waaye Cameroun nañ ne kii moom pour man erreur bi foofu la nekk joueur lu mu mën a football football lu mu nekk produit produit yow demal nga contacter ko après bu la waxee déet j'ai pas de souci yow lii la war def nga ko mais boo deful lii la war nag mën nga am ay regret euh, parce que le roi Sénégal après def na benn déclaration comme quoi moom par exemple mosuñ ko contacter et que bu ñu ko contacter mën naa am mu d'avis et que papa mos na jouer Sénégal parce que carte Sénégal dafa ko def ci ginnaaw di poser question Benjamin Mendy tout le temps si Sénégal ak yooyu ak papa pour vous dire que euh, bañu Sénégal xam nga donc ku la mosul contacter kooku mënoo dem si dëkkam ak lu ñu mën ti wax man xam eh, naa si dara xam bu fekkoon peut dama koy wax nii dox sama dox mais bu ma nekkee Instagram souvent bu may wax ak boy yi xam ne dañoo mën a football waxuma la boy ñii rek ñu xamante ne Espagne daf leen soxla wala yu demee noonu dama leen poser question souvent euh, est ce que Sénégal mas na contact tu me réponds tout de suite non parce que day Ferland Mendy daan daan nañ teg ay brassard benn zone rouge bëgg nañu jouer Sénégal mais ñun xaw ma ñaari ñaari erreur lañ def yenn saa dañuy yéexee contact yenn saa dañuy xaar ba nga ñor France soxla ñun dañ fay taxaw boobaa c'est c'est fini mon frère alors alors donc contact boobu boo ko ratee rek dina def maintenant nag damay dalal seen xel euh, c'est pas encore trop tard xam ba tey lu mën a nekk la pour que mu ñëw équipe du Sénégal am na ay complications léegi damay wax complications yi ak lii dal sama xel complication yi mooy par exemple moom contrat ak Olympique de Marseille léegi mu jeex maanaam instant on parle de Juventus on parle de Bayern Munich on parle de Barcelone ku ne Barcelone yi nga xam wax ne Xavi Xavi moo fa nekk dañu bëgg a tabaxaat beneen Barcelone avec Boubacar Camara 21 ans euh, pourquoi pas ñoo ngi wax Juventus Juventus aussi ku wax Juventus actuellement dañuy tabaxaat seen équipe parce que c'est très compliqué ñoo ngi Serie A voilà est-ce que du taw bi maanaam championnat mën nañ ko ñàkk donc c'est compliqué euh, ku ne baax na c'est le haut niveau c'est le très haut niveau et que tu peux progresser parce que ñoo ngi wax ne Tolisso day dem Tottenham donc lu mën a nekk la léegi loolu ay complications la parce que liy euh, descendre dafa am benn critère bu am solo bu muy xoolee joueur laata mu lay convoqué mooy critère Ligue des champions parce que boo xoolee Boubacar Camara presque génération wala ñi kam ak ak ñi mu magul ñëpp ñëw nañu équipe de France que ça soit Awar que ça soit des Kamavinga des il y a tellement de joueurs yu xamantene convoqué nañ Gendouzi des joueurs yu xamantene convoqué nañ ci milieu terrain bi et Boubacar Kamara day enchaîner les bonnes performances et mosuñu ko convoqué donc fi mu fi mu waroon a euh, passer le palier moy Ligue des champions malheureusement Olympique de Marseille dafa tok léegi bu démé benn Barça bu démé benn Juventus lumière bi day nekk ci mom visibilité day gëna taxaw te bu boobaa décembre mën na ko bañ mën ko bañ wo quoi ça veut dire donc foofu benn complication la pour suñu suñu Sénégal léegi fii xamante ne dal na sama xel c'est coupe du monde bi c'est que Jean joueur léegi nii comme Mbappé ni ñu ni muy demee la ñu on parle pas d'âge lay wax maanaam mënatuñu toog xaar dara et que opportunité coupe coupe du monde ñu jouer que Qatar dañu ñaan ñu qualifier tout d'abord avec notre nouveau stade avec euh, Sadio Mané Kalidou Koulibaly Tolier de la défense Sadio Mané l'un des meilleurs joueurs du monde Edouard Mendy euh, Tanguy Gueye Paris Saint-Germain joueur bu nekk bëgg na jouer si équipe boobu étant un beau stade bu stade euh, Diamniadio c'est un projet bu xamante ne pourquoi pas donc euh, ça va lui travail je pense que un Pape Gueye un Bamba dinañ ko wax ambiance bi nekk équipe du Sénégal ak carrière am fan la ko mën a yóbbu et autour de ça boo waxee ay entourage am parle à son agent agent am mën na ko convaincre mu ñëw Sénégal donc possibilité pour mu ñëw Sénégal lu mën na nekk la actualité la ba ba tey donc euh, Aliou Cissé fédération sénégalaise de football xam nga mooy li may wax tout le temps. aloo booy est-ce que pare nga pour jouer Sénégal dama ko xeeb dama jàkkaarloo Aliou loolu laa ko ñu wax parce que dama gis ne boo bëggee joueur il faut que tu fais nga def la déplacement dem à Marseille toog ak Boubacar nga wax ko les réalités xam nga ne que lii laa bëgg lii mooy sama projet ak yow dama la bëgg a teg fii ak fii parce que man damay wax bii nationaux yu bëri mais dama leen wax bii nationaux bi ma gën a rêve si joueur yëpp c'est Boubacar Camara c'est un joueur extraordinaire match de progression bu important là am parce qu'on a vu des matchs où xam il passe à côté mais c'est un joueur bu xamante ne par rapport ak benn Pape par exemple xam nga de beneen level euh, ak euh, dans les duels euh, physique mën a dalante très technique relance passe court passe long polyvalence bi axe xam nga ay qualité bi mu ci ñëwaat quoi xam ngeen Boubacar Kamara donc man dafa ma impressionné parce que à l'âge de 13 ans laa ko découvrir et jusqu'à présent maa ngi suivre donc euh, bi mu nekk réserve olympique de Marseille ni muy passé les paliers di ko passé di ko passé jusqu'à bu mu équipe A donc je me rappelle tout de Boubacar Kamara son premier match à Sochaux coupe de France latéral droit xam naa bu baax boy. bi donc euh, c'est un jour bu xamante extraordinaire donc mbokk yi garder espoir euh, et que fédération sénégalaise de football bu defee lii war je pense que bataille tey actualité la mën na ñëw équipe nationale du Sénégal lii mu vidéo bi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis mu leen di jaajëfal di wax ba beneen sur TV.